député Pape Djibril Fall à tout à l'heure commercial wala duñ ko ko def ñi xëcc boor bële am ay marche am ay coow yu ci amoon waaye nag li nga mën a jàpp tey jëlee mooy ñi nga xamante ni ñoo jugoon ni stade bi kenn du ko def centre commercial ginnaaw bu maire bi jëlee ndogal bu du mel ñoom dem nañ ci kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi yëpp rawatina gouverneur préfet ak kilifa yi nekk ci biir réew mi yore wàllu sport mujj na nag jël stade bi ñu doon mu doon statut boo xamante ni statut régional la stade boobu nag jàppal ni ñu ngi tëjoon ci atum 2015 euh, octobre 2015 lañ ko tëjoon ba léegi kenn mujj fa football kenn def fa dara ay mbarit lañ fanaan tour ak yu mel ñi nga xam ne ñooy comité bi nag ñoom dañu ne woon ñoom xeex bi ñu xeex te jii mooy centre commercial bi duñ ko tudd bëgg bëgguñu mu am li ñu bëgg mooy ñu daal di ubbiwaat stade bi ñoom ñooñu nag tey bu fekkee ni xeex bi egsi na fii ñoom jàppal ni suba sax nee na ñu ci samedi bi dañu bëgg amal nettoyage stade bi ndax gis na ni stade bi tilim na kon war nañ ko joxaat beneen xar lenn itam loo xamante ni dina ci am tey jile ci ngoon comité bi nga xamante ni mooy daje ñu fàttali leen ni comité bi tey Babacar ki ko jiite mooy maître Moustapha mbay moom mooy président bu conseil départemental bi loolu itam si exigence yi la bokkoon ngir nag ñu mën a amal comité boo xamante ni mooy comité de gestion bu stade bi ñoom tey jii ci ngoon daañu amal ndaje boo xamante ni daañu waxtaan ngir gën a mën a xool nan dañuy def ay pexe ki prox ndoll ngir liggéey boobee gën mën a yeewoon Babacar. jërëjëf euh, Ousseynou RFM matin 7h40 Oustaz Mor Thiam salaamaaleykum ñu ngi lay ziar. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu xaj Babacar delloo naa la nuyoo ak ziara ci bis bu tedd bi. jërëjëf Oustaz yóbbu la àjjuma ji. waaw xaj Babacar. Euh, yóbbalu bi dafay ñëw rek ci. ñaari baat benn bi mooy luy far bàkkaaru semaine ci àjjuma ak njariñ bi nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa rawatina ci àjjuma liy far bàkkaar xaj Babacar mooy lu yonent bi wax ne ku sangoo sa kër waaj xeeñoo lu neex ñëw ci jumaa ji te jéggatuloo julli sa taxiyatul masjid toog déglu imaam bi ba imaam bi xutba ba pare nee na ñu baal la sa bàkkaaru vendredi bee passé ba vendredi bi beneen bi ci des mooy mu ne bari leen lu ngeen di julli ci man surtout ajjuma parce ku julli ci man mooy ku def salaatu ala nabi dinañ ma présenter salaatu ala nabi bi te kon lu mu gën a bari moo gën xaj Babacar ñu fonk ñaar yooyu effacer suñu bàkkaar ñu présenter ñu suñu dossier ci kanamu yeneen ci bi xaj Babacar. jërëjëf Oustaz Mor. RFM matin RFM matin émission bi yee waa Sénégal. 7h42 ñu dal euh, sunu gan euh, mbokk yi Serigne. Euh, Modou euh, Mbacké Bara Dolly salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu RFM euh, di wax ne jumaal mubaarak di ñaanal sunu sëriñ sëriñ Mountakha Xaadimu Rasuul mu yàgg fi ak mboolem xalifa bu ne ci réew mi. jërëjëf yow yaa euh, jiite mbootaay gi ñuy wax convergence taxawu ndonoy mag ñi. ngeen bokk ci ñi organiser tey manifestation gannaaw julli juma ca Masalikul Jinaan fi ci Ndakaaru Euh, doxum ñaxtu jëmale place de l'obélisque ndax kàddu yi Omar Diagne yi mu yëkkati ci tarixa yi rawatina bu bu bu murit waaw euh, tey jii lañ ko organisé mu doon loo xam ne nii dañ koo bëgg a ànd ak mboolem euh, jullit yi ndax euh, ñëpp xam ne kàddu yi nga xam ne moom mi nga xam ne mooy Omar Diagne mi ngi koy yëkkati jëmale ko ci li nga xam ne mooy tareex yi nekk troxu yi nekk ci réew mi ca mu doon loo xam ne kàddu yu ñaaw a ñaaw la ca ñun sunu njàngat dañoo jàpp ne réew mi pour li nga xam ne jàmm ji war a mën a des ci réew mi danoo war a fexe ba sàmm li nga xam ne mooy ndono yu fi mag ñi bàyyoon waaye dañuy sàmm li xam ne mooy pas-pasu nit ñi ca jàpp naa ni li feeg ñi ngi sàmm li nga xam ne mooy pas-pasu nit ñi mën noona wax ne réew mi mën naa continuer nekk ci jàmm waaye dañoo gëm ne nag réew mi waxtu wu ne ñi ngi jéem a laal li nga xam ne mooy pas-pasu nit ñi ca euh, loolu dafa bokk danse la boo xam ne nii euh, ca dëgg-dëgg ci réew mi mën naa jur lu ne ndax ñaar ñoo yàq euh, am réew wala gaaw ci taal am réew muy affaire religion ak affaire ethnie kon yooyu ni ñu koy moytandiku lu am solo solo la. Mhm. sëñ bi euh, solo yow lan moo tax euh, lii nii bi mu commencé ba léegi nii euh, président de la république premier ministre ñu bàyyi kii di Cheikh Oumar Diagne mu nekk ci palais de la république parce que quand même ku nekk xam na Cheikh Oumar Diagne yóbbul boppam foofu te bi mu jëlee bi mu waxee wax yi ñëpp dégg nañ ko méttitlu ko lan moo tax sono yow démettre wuñu ko. génnewuñu ko xam nga loolu bala ngay wax loolu sax dafa am lu ko jiitu lan moo tax sax ñu war koo mën a fal ci bu mel noonu. ndax nit ki dama jàpp ne ki nga xam ne xam nga ko xam ay jaar-jaaram xam fi nga xam ne yàgg na koo yëkkati jëmale ko ci wàllu tarixa yi xam ko ndax nit ki nga xam ne xamul sax yaakaar naa ne état bu la ci defal dara dana am lu njëkk def mooy ay enquête di mu ko tudd enquête di. enquête de moralité waaw koo xam ne am est-ce que jar na enquête parce que dañ koy dégg chaque jour. muy moom laa la wax ñëpp xam nañ ko kon ku mel noonu tey bu ñu jëlee poste boo xam ne relation yu bari yoo xam ne ak reexe yi fan la war a mën a jaar ndax bu ñu waxee julli yi quatre-vingt-quinze pour cent yi ay tareex lañ gëm. Mm. Ah, kon gëm nañ ne lu mel noonu moom lañ njëkk posé problème bi am lu tax loolu waaye nag gis nañ ne jàngat nañ bi lu mel noonu amee premier act bi mu posé muy ci leetar boobu am na loo xam ne wane na ko léegi nag boobu ba léegi si jàpp naa ne pression bi euh, ak nit ñi nga xam ne ñu ngi yëkkati ay kàddu am lu leen naqari parce que du pression mbirum tooñ la am ci nit ñoo xam ne euh, ñi nga xam ne ay gëm-gëm lañ am am ci lu leen naqari kon gëm nañ ne tey gis nañ. li nga xam ne am na ki démb ci directeur bu ONAS ak le ministre euh, euh, Cheikh Tidiane kii mais ci saase ma nga woon Touba waaye ci saase la ko lim soe ah kon tey bu lu mel nii amee mu doon loo xam ne ñëpp jëg nañ taxaw ñëpp dégg nañ ti waawan démb ñëpp dégg nañ kilifa yi nga xam ne yëkkati nañ ci ay kàddu kon gëm naa ne bu fa desee ba pare loolu li ñu posé question est-ce que le fait que par exemple bu ñu ko bàyyee foofu malgré lu ñu wax nii yëpp est-ce que mun na mun ngeen dem ba xoolaat relation avec Euh, le président de la république ak le premier ministre. ah waaw loolu kay lu leer na ndax euh, nit kay euh, ki nga xam ne dafa jàkkaarloo ak i nit boo jëlee arme aw yat jox ko yow kay yaa ni ko dóoral nit ñi kon ñu nit yaakaar naa ne duñ fi toog di xaar ku ñu ku ñu dóor yat woowu di continuer du ñu dóor yat woowu gëm nañ ne tamit jàpp na ne am réew it boo koy boo koy boo ko boo ko demee ba yor ko danga koo war a yor ci loo xam ne lu lëkkale jàmm la loo xam ne jàmm jooju day war a mën a sax ci réew mm. boo demee ba nga xam ne teg nga fa koo xam ne ke dëgg dëgg dëgg dëgg euh, nii nit ñi dundee situation yi ci fan yi mbir la moo xam ne euh, euh, teguwut fi mu war a tegee moo ne Diomaye ak Sonko dem nañ Touba sukk ci sëñ bi ziar ko de wala da nga ci gis itam safaanoog ni ñuy doxalee ci mbiru Omar Diagne gi. waaw xam nga ñun ci suñu jëmmi boppam ñu ngi posé question boobu ndax dëgg-dëgg bi ñu toogee ak ba léegi si nin dugg yi ci biir kër diine yi ak nin toogee di sukk di raam parce que damay gëm ne euh, kër diine yi dëgg la am jàpp en tant que ci état la soxla nañ ko ndax li nga xam ne mooy euh, seen kilifteef ak li nga xam ne aju ñu ci ñoom waaye li ñu gën a soxla ci nit mooy ak yëg. ci yëg googu am na ci ñoom jox leen cëram waaye nag liy ñuul ci soow mi mooy lii am ñu toog na tekk boobu léegi waxuñu ak li tax ñu teg ko ci post bi parce que nag am na loo xam ne bu continuer danaan dëmëree la jaale la yooyu nag nit ñi ñu ngi ciy xalaat parce que koo gis ku nekk rek danoo tàmbalee yem ci Cheikh Omar mais nag bu fi fi ñu jëmit ñi ngi dégloo di xaar euh, fi ñu jëmit bu fekkee ne euh, liñ ki war a def defuñu ko bu boobaay nag ñun it dañ ko dutuñu wax Cheikh Omar Diagne dañuy wax ñoom ñu ko fi teg ñoo ko protégé ba tax muy ba jëkkati kàddu yu mel noonu def parce que bi mu njëkkee di wax nekkoon Cheikh Omar Diagne ñu be ñu bëree bare peut-être bàyyi ñu ko xel sax waaye fi mu nekk ak place bi mu nekk lu ñu bëri tey dañ koy gën a bàyyi xel tey dafa am arme boo xam ne mi ngi ci loxoom loolu nag duñ ko wàññi ko bàyyi. am na am na ñuy xalaat ni euh, ñoom Diomaye ak ñoom Ousmane Sonko euh, gëmuñu tarix yi. donc euh, seen euh, lépp lu ñuy def dañuy jéem a maslaa nii rek mais en réalité gëmuñu tarixe yi et suñu amee genre bras armé comme kuy chez euh, chez Omar Diagne mun na nekk foofu di jéem a gis nañ ñu ñuy saaga noo marabu avant les élections loo xamante ni mosuñu ko gis et puis nuñ leen di ñàkkalee fayda est-ce que yéen yéen a ngi xalaat. bu fekkee ni genre projet boobu am na nu ngeen koy contrecarrer. pour ñu xam nga loolu luñ xalaat la luñ bàyyi xel la ndax depuis élection yi ak depuis lu ko jiitu ak ñi nga xam ne tey boo xoolee ni seen euh, euh, kii Facebook ak seen euh, mboolem ci kii ci internet bi boo xoolee ñiy sàgg kilifa yëpp ah, seen photo lañ ciy def yàgg naa am ñoo xam ne nii taxawaay yooyu lañ yàgg am. ñu yàgg wax ne ñoom ñoo ñoo ma ànd ci lu mel noonu. ñoom ñuy weddi lu mel noonu. kon tey bu fekkee ne jot nañ am réew ñu gis ne ñëw nañ Touba dem nañ Tiwaawan dem nañ dëkk yëpp wane wane ne ñoom ci seen jëmmi boppam nekkuñu ci loolu waaye nag suñu gisee koo xam ne ni dafa euh, yor beneen yet nekk ci seen wet depuis quelque jours ñu ne ci situation yu mel ni ci ñu yàgg caa nekk nag ah nit ñi dañuy bàyyi xel lu bari ndax nag nit ñi li damm seen bëti om yi demul seen xel yi ndax nag. ku ñuy jiiñ leneen bu la séenee nga yor yeeli nangam di ko seeñu danaan voilà kon fii ñu toll it ñun préparé nañ bu baax a baax ndax waajal nañ ko démb tey soogu ñëw. pour faire face pour faire face. Mm-hmm. parce que nag euh, li fi mag ñi liggéey ci dëkk bi. ah tey ñu mel ne Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Omar Fouti euh, maam El Hadj Malick et cetera ñëpp liñ fi liggéey ci réew mi du nangu. un pour cent wala deux pour cent ñëw yor bokk ñu jox leen ay euh, kii arme ci biir euh, état bi ñu wàññi ko def face à ñun ci ñi leen fi teg bu ñëwee ci ñun ba pare sukkuraam wala yu mel noonu euh, bu ko defee yenn kilifa yi nga xam ne ñoom ci seen jëmm boppam xamuñu lan la leen seen maam defal gëmuñu ko dunduñu ko wàññi di leen protéger parce que am na kilifa goo xam ne sax mi ngi ñuy wax na neen bu leen ci tudd ni Jomaay ni Sonko ñun nag tudduñu kenn ci Omar lan yamagul waaye nag. am na fu ñu ko teg fi ñu ko teg nag buñ continuer tamit dañ koy tudd ndax nag mii ñu xam ne ñun moom lan gëm duñ ko yemale parce que laal pas-pasu nit dafa metti bokkut ak euh, yeneen yi ay politique yu mel noonu nit ki nag boo continuer di laal pas-pasam ca nit mu teel laa bàyyi xel avant nga cay egg yaakaar naa ne dana hmm. da nga préparé pour jàkkaarloo lépp nag mi ngi bawoo coow li ci lettre bu moom Omar Diagne ndax gaa ngi naan Cheikh Omar Diagne tudd noonu du Cheikh Omar Diagne la tudd. waaw dëgg la waaw euh, moom Omar Diagne lettre bi mu bindoon di tontu. Euh, comité d'organisation commission d'organisation màggal de Touba euh, jaaree ci lettre bu Seexuna sañ sëñ naa mi ñu euh, dénk wàllu relation extérieure lànkal Touba hôtel ak woto yi ñu waroon a jox ay gan yi sëñ Muntaxa ci màggal gi fa la yëfi doore waaye loola moo tax yeneen jébbi ay kàddu yu mu yëkkati woon nee na sëriñ si diggante mu xaram jàpp Tamxarit jàpp gàmmu xaalis bu bon bii dugg ci Sénégal lu ci bëri yéen sëriñ yi yéen ko fiy dugal Touba ak Tivaouane nee na itam sax jumaay Touba maa ngi tuub de nee na am na mandargay franc loolu doo ko gisee. waaw xam nga loolu ni ñu ko gisee euh, waxi démbam sax Babacar am na jeneen wax ju bees yoo xam ne ci presque semaine bi la nekk gannaaw bi lettre bi amee. Euh, euh, bala ñuy dikk ci loolu gannaaw bi lettre bi amee ñun ba mu yëkkatee ñuy def benn ndaje pour mu ñëw wax ci benn thème ba mu dikkee di wax man ba commencé di wax tàmbali ci Cheikh Omar Fouti borom xam-xam mag la dama ah kii li yëngatu ci dëkk bi moo tax muy jégalu si xëy na day jégalu si wala muy rectifier li mu def ñu ne noonu la mun ne Seex Ahmadu Bamba borom xam-xam mag la ñu ne noonu la mu ne Seex Maam Alaaji Malick borom xam-xam bu mag la ñu ne noonu la mu ne Seex Ibrahima Ñas borom xam-xam la daal di ci teg ne ak Seex Anta jóg ñëpp man foofu dama toog ma toog di déglu nag di observé lam ca teg mooy ñoom téere yooyu ñu bind ay nit lañ koom ñëpp dañ koo war a gëstu saytu ko ndax du ñàkk ay njuumte yu ci war a am ñu corriger ko war a ko war ko critiquer loolu wax ju bees la bokkut wax yu jiitu man nag dama gis loolu weekend bi passé loolu weekend bi weesu la hmm. loolu bokkut ak nag yi nga xam ne dafa loo dafa sulliku gannaaw bi xam nga nit ki danga dem ba yàgg nga nekk ci benn yoon ba yàgg nga dëpp nit ñi mën a muñ man laa jéggal ndax ñu ñëpp la ñuy jóom ndax moom bi mu koy yëkkati kàddu yooyu ci mbindum sëñ bi ak euh, Alaaji Malick ak euh, Baye Niass mhm. boobu coow laa ngi ne kur ñu foogoon ni seddal day am mhm. mu yokk ci xar mi karaw waaw loolu loolu la def ndax tey bu fekkee ne yow ni def nga leetar bi ñun ñi di bàyyi nit ñi di xalaat di ci xalaat mu doon lu metti nga wàññi ko ñëwaat góom ba nga xulliti waat ko encore jàkkaarlook nit ñi te fekk ne yow góom yu baree baree xulliti nga ko ci gannaaw nit ñi liñ mën a def mooy delluwaat ci gannaaw ndax tey boo gisee Maroc porte plainte euh, kàddu yooyu mu yëkkati woon boo gisee ñun ñiit ñu dem def beneen plainte boo xam ne jébbal nañ ko ki nga xam ne mooy procureur Ibrahima Ndoye lañ ca def mooy lii nga wax li mu wax nga xam ne ci biir semaine bii la li nga xam ne wax na ko jëm ko ci grande mosquée bu Touba ne am na sëñ pharmacie yu fa ne ñu wax ko nañu wan loolu fan la nekk ndax il faut mu wane ko beneen ba ci recette li nga xam ne wax na balancement di arsa boobu nga xam ne sëriñ si ñoo koy def diggante weeru màggal ak weeru gàmm loolu it moom faw mu wax ñu yan sëriñ la ndax man mii ci laa bokk wala keneen ca la bokk wala keneen ca la bokk loolu il faut mu leeral ko bu fekkee ne dañoo wax ne réew mi réewu la tey boo yëkkatee ay kàddu wax ko président de la république bu subaa doo fanaan tey am nit ñoo xam ne seen i pas-pas la ak seen gëm-gëm nga wàññi ko yow wàññi ko tuumaal leen taqal seen. der yàq seen euh, loi Sénégal constitution bi ci wax moo si. waaw kenn bañ leen a salfaañi ak euh, tarixa yi. dëgg la parce que aar gi leen aar mooy bëgg réew yi mi nekk ci jàmm ndax wax naa la ko léegi lii taal am réew ñaar yooyu moo ci gën a euh, garaaw kon nag tey bu fekkee ne lu mel noonu am na mu koy def continuer nekk biir palais wàññi ku jege biir pale ñëw ñu ne ah, kii kat ministre nangam la mu yëkkatiwaat kàddu yu mel noonu wax ko kon ñun lii nga xam ne moom la su sama xarit bi wax loolu lan teel a bàyyi xel ñi ngi bàyyi xel lan moo ne ci gannaaw. Touba ak Tivaouane jot nañ réagir ci loolu. Mhm. est-ce que xalaat mhm. euh, peut-être face à cette menace ngeen def jonction pour faire face. loo xamante ni peut-être mi ngi ñëw ci yéen ci confrérie yi comme ñu koy waxee. waaw xam nga loolu ñi koy def ndax euh, depuis quelque temps nee naa la boo gisee tey jii ñu dem ba def ab groupe. di taxawal ay convergence taxaw na ne mag yi ñeneen ñe di tere mooy sëriñ si xam na ne léegi booloo moo leen wa moo leen war a gën a man euh, gën a nekk benn moo leen mooy li leen war hmm. ca doonte suñu borom digal na leen ko na waxta waxtasimo bi ablillahi jameen wala tafaraqoo mais li ëpp solo mais ñun menace boobu gis nañ ko ca préparé nañ ko waajal ko mbir mi dafa mel ne dafa gën a am beneen euh, kii bu gën a màgg am doole ndax tey lii am tey ba toog ñu tax ñu tax toog fii di wax ca dëgg-dëgg mbir la moo xam ne nii euh, euh, bàyyi woon nañ ko xel démb tey soog a ñëw ndax nag amoon ay signal yu bëree baree bare bëri waaye ndax ñun nag li ñu sunu maam yi liggéeyal ñuy dund ci barke boobu ñu wëññiku nekk ay yu citoyen ñu tey boo demee ba amerique ña nga naan dans euh, euh, Washington nangam Lincoln ñu dem ay Victor Hugo ay yeneen ñu dem ci réew pays arabe yi imaam nangam imaam xasal imaam nangam ñu gëm ko ñun sunu maam yi nekk ci réew mi liggéey fi loo xam ne nii tey réew moo dem am na am am ak ñooñu ñu ngi leen wormaal weg leen tey ñun ñu bëgg a màbb loolu màbb loolu tekku ci lan lan lan war a mën a indiwaat. Mm. mooy mag yeneen i réew kon lan fi war a mën a indi taawal kon jàpp naa ne. loolu moom waajal nañ koo taxaw nañ fas yéene def face lan mooy rôle euh, peut-être euh, ñoom euh, en tout cas ñi nekk les les politiciens ñi nekk ci Touba Mbacké Cheikh Thioro en tout cas xam nañ ñii lay de Pastef ci wàllu wala yow noo gisee déjà moom sa réaction par rapport ak lu xew un peu ci lii nii yow noo ko gisee. xam nga moom sunu rakk la yëkkati woon na ay kàddu am na njuumte lu ci amoon ndax bi mu yëkkatee kaddu nag kale. Euh, sëñ Cheikhouna parce que euh, nu ñu koy waxatee euh, APR la bëgg moom moomal la lu mbir mi du ay parti est-ce que sentir nga nii mu ngi jouer rôle am ci wàllu politique la koy gën a jouer wala ci wàllu taarix dama ne mbir moomu ba nga ko waxee sama rakkal la dama ko waaye nag nagu ñuum am ñuum te am na mbir mi du mbirum APR du mbirum ay Pastef du mbirum nangam waaye jéggi gisaan naa yeneen réaction yoo xam ne naqarloo noonu li sox euh, euh, kii Omar Diagne wax kon jàpp naa ne moom it en tant que parti ba mu féete yaakaar naa dana wax ak ñam war a waxal keneen ki nga xam ne tamit mooy Lambaye Diouf moom am na ay kii bu ci def muy Moustapha Diouf wax na ne donte dafa ànd ak euh, Pastef du nangu Cheikh Omar Diagne di yëkkati kàddu yi di ko wax. waaw mais sëñ bi boobaak euh, léegi boobaak euh, léegi euh, sëriñ sànq koy méttitlu tarixa yi di ko méttitlu taalibe yi métti mais taxul affaire bi bougé waa jàng pale ba léegi Diomaye ak Sonko bàyyi ko fa est-ce que seen xeex bi dina yaakaar ngeen dina jur daraam. ah gëm naa ne dana jur dara ndax ñu ngi waroon a def tey jii li nga xam ne mooy marché bi ñaareel bi mooy ñun. dun li nga xam ne moom lañ wékkoo muy combat boobu duñ ko arrêté mukk li fekk parce que li liñ bëgg wax ñu ay marché Dakar rek dañoo bëgg mu nekk loo xam ne o niveau national au international parce que foo ci dem ci réew yi ci àdduna bi am na ay kër Sëñ Tuubaa am na këri maam El Hadj Malick am na ay nit ñoo xam ne gëm nañ li nga xam ne ca jàpp naa ne ku war a mën a xeex parti politique mu gëm loola dara war nga am na xeex li nga xam ne sa pas-pasu la boo xam ne nii sa gëm-gëm la kon jàpp naa ne tey nin def ñoom ban am loo xam ne nii ñoom gëmee lañu leen ko ñun li nga xam ne sunu yi liggéey na ko ci tooñu ñu kenn dañ ñoo tooñ buñ ko toppee jàpp naa ne parce que man li ma gis fi mu doon wala 50 pour cent yoo xam ne ay Pastef lañ yoo xam ne nii ñun xam la ci internet bi ak feneen feneen yoo xam ne au niveau du euh, état bi ci leen bokk lii Omar Diagne def neexu leen kon jàpp nañ ne tekkeeral jooju moom doon na loo xam ne est-ce que est-ce que bu jéggaloo di ngeen ko baal xam nga sa jéggalu moom tooñ lu mu rëy rëy jéggal am na ci solo waaye kii ma gis muy Omar Diagne kooku pareegut pour loolu ndax li tax pareegut pour loolu am na fu mu toog sukkandiku ci lu mel noon ndax tey li ma wax léegi nii bu fekkoon ne bi nga xamee ne Euh, problème bi am na lettre bi am mu doon coow kon du demaat di defaat beneen euh, déclaration encore kon kooku pareegut yu mel noonu. léegi euh, manifestation bi tey gannaaw jullit juma la ci Masalikul Juna Jinaan fii ci fii ci Ndakaaru. waaw tey la tey la gannaaw bu ñu julee ajuma ba noppi déposé nañ kii bi 72 heures lañ doon wax ñun xam na ni ñu ngi ci 74 heures ay galgal yu bari mi ngi ci am mais teewul ñun. da ngeen ragal da ngeen ragal kilifa yi lankal leen. manifestation mais lank ko ah bon ah ñu ngi ko déposé donc manifestation non autorisée. ma ne ni ngi koy déposé à 15 heures 14 heures bi 16 heures boo ko le 3 ba le 6 boo ko xoolee 74 heures la. léegi léegi léegi léegi ku ko lànk préfet. Ah, mais préfet moo ko lànk. léegi nag nu ngeen ni fas ah, yéene def mais lu ñu def ñun gëm na ne danañ dem julli ji bu julli jee mu dajeeg mbooloo mi wax leen li nga xam ne mooy li ci am ñu gisee ko noonu buñ mbooloo mi àndeek seen gëm gëmit ak seen pas-pas dem ñu jiitu ànd ko ak ñoom parce que nag ñun dañoo gëm gëmuñu. ko sëñ bi mbaa leen dóor ay lacrymogène eh, waaw bu boobaa c'est la première fois ci ay soir Euh, manifestation religieuse ñu dóor leen ay lakk loolu moom bañuñu ko sagam ñoom ñoo ko doon def ñu leen koy def asama ak ñun waaye li wér ci wóor mooy am na loo xam ne am na solo ñun jéguñu ngir saaga jéguñu ngir xeex tooñuñu kenn danoo tooñ suñu maam tooñ Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ñu war a toog jàkkaarloo ak ñi ko tooñ wax ak ñoom ca tey bu fekkoon ne lañ bëggoon defal nañu ko tey duñ egg fu mel nii jàpp naa ne loolu mooy li ci am solo Serigne Modou Mbacké Bara Dolly jiital euh, convergence taxawu ndonoy euh, mag ji jërëjëf Aliouma jëf soxna naata. jërëjëf Babacar moo Mohamed Alimu Ba ak euh, seen gan ñu ngi leen di ziar di leen euh, ñaanal kendal ak jàmm ak programme rajo Futur Média ci kanam tuuti incha allah ñu ànd ak Souleymane